dikk leen lekk xuu fa tàng so hot guys fa tàng tàng tàng ba nga xane dikk leen lekk dikk leen lekkoo dikk lekk dikk leen lekk <laughs> pare mu si lekk yu tey de comment it guys Why very hot? Extremely hot, guys. Why? Ooh, too hot. too hot fa tànk ba ëpp ak ni mu neexee nag xam naa sénégalais yu bari duñ xam lii mu ana sama géej wa ci biir de waaye fa tàng wuy ana géej mu ngi nii waay ay ay <laughs> ay barki salaatu faatiya ma tàng ba ëpp it's so hot it's unreal guys oh my god dikk leen lekk ak palaat bi ma feesal nii so guys yéen ñu bari ñu xamul lii lan la lii moo tudd ñankatang yes of course come join me xam na yéen ñu ko xam xam na yéen ñu ko xamul fast stuff is so nice extremely nice guys even though it's very simple this food very simple and nice xam ngeen lii ñànkatan bu xam kànja la only the Gambian people might know this lu yaayaa di reer mm, so nice barki salaatu faatiha lekk gi ni mu neexee ba jéggi dayo bu leen ko seen nii de ni mu sempalee de kenn xamul kañ laa gëj a lekk maalo de ñetti fan xamuma ñeent foog naa ñetti fan la hmm. so nice for people who are not from my country this is rice fish and okra lii ñànkatang la tudd fa simple waaye ni mu neexee bàkki salaatu faatiya fa simple te neex danaa leen boloké de baax na ngeen grade 2 ndaw géej wu foroxta neex mooy géej wi mhm. nday nday nday laaw <clears throat> hallo sista jàmbo hallo guys lii xam ngeen lum do ñankatan maanaam fa xalamee ni mbaxal waaye woy fàtte naa jaare suma nete tuja mën naa ko cee suude nete tuju ñorul ji sungu si ah sungu si nete tuju si ji de xaaral ma jàpp si yàlla ba ko beneen yoon fàtte naa suma nete tuju naqadi ma ha ma ci waroon a suy nete tuju toggaale kook moom naqadi na ma waaye ba tey neex na noonu ma cee def diwtiir te diwtiir gi neex xam ngeen nii niñ koy toggee <laughs> doo ma ku leen woowee du ngeen ñëw it's no point anyway dikk leen yéen a koy yëg mu ngi nii xam ngeen lii lum lii ñànkatang la faam ñànkatang yoo xam ne nga ciy def eh, kànja xam ñànkatang yoo ne xamul kànja bii bu xam kànja bi la mm-hmm. fa neex de fa neex ba jéggi de am kànja bi xaw fa neex ba jéggi dayoo te gaaw togg comme kuy togg mbaxali gerte rek waaye doo ci def gerte ñi ngay def mooy baxal maaloom neen mi su maaloom neen mi demee bay waaj a ñor ba ndox mi wàññeeku you know ba ndox mi <coughs> ndox mi newoon ci kaw yëpp jeex nga dal di suy sa kànja ci kaw kànja gi nga ferej ba pare buy kànja gu galaase gi la it baax na moom laa ci def <laughs> suy ko si kaw ba pare def sa fekk yaa ngi raxasoon sa géej géej gi moom mun nga ko see teel a def sax soo buggee maanaam boo tegee maalo bi rek dugal si géej bi mu ñoraaleeg moom def na si yow waaye man géej bi teelu ma ko si woon a def soo bu mu ndox mi wàññee si laa jël géej bi dugal ko si biir bës ko mu dugg si biir maalo mi mm-hmm. <clears throat> ma seet maalo mi gis ne ndox mi ma defoon fa tuuti boobu ma gis ne maalo bu du ñor ma yokk si tuuti ndox wis si tuuti ndox yu noonu def kànja gu xem ci kaw def jën wii mooy jëni jën yi fa mel ni sardeñ waaye du sardeñ ci pot la dee ne du jëni sardeñ makrel la boo ko xamul sardeñ boo ko xamee baax na wala keccax loo xam baax na def ci kaw <clears throat> fekk nga war sa soble kaani nga def ci <laughs> def sa tuuti jimbo wala ajaa yi loo am rek def sa xorom yépp <laughs> daal di dëpp fa yomb soo ko dëppee ay fukki minute ak juróom yooyu noonu mu xem nga ñëw ëlbati yëngat rek nga daal di koy yàq suy sa diwtiir léegi nag waaye nga si war na suy netetu nag aha wala nga walaale soble bi ak netetu <laughs> loolu laa fàtte mhm. waaye ba tey neex na noonu waaye maa fàtte ne ditu kaane bu di jigéen nga defaale ko ci fa neex ba jéggi dayo bu la neexee nga def ci sippax maanaam boo dee ba nga xam ne def nga dem nga si sa soble yeeg yooyu boo ciy def rënd bi si nga si soog a def sippax ndax sippax ko gaaw a ñor <coughs> booy def rënd bi nga def sippax si kaw bu la neexee mhm. bu dee bëggoo kànja nga tëb kànja gi bu ko ci def waaye fa neex ba jéggi day fa xalamee ni mbaxal waaye fa xuute mhm. neex ta simple fa mel ni fa am ku may xaayati lekkam vidéo mi de te yéen duuleen suma jëkkër duuleen suma yaay xaw ndaw togg gu neex walla doy ma trans maa ngi lekk mënumaa rek duuleen suma jëkkër duuleen suma yaay tollu fële rek di law lawi ne mukk naa ba li may def defuma taati neen saagawuma dara di lekk-lekk comédie di lekk suñ lekk cosaan sax boobu xaw suma ñaag rëy na ñaag yu rëy yi du may def daal mënta yàq askan wi mënta indi askan yi fitna moo ma jaaxal lu tax ngeen ni mukk naa ko ba mais ni man may ci reyam askan mi laa ne wala dara wala di xalak askan mi <clears throat> di ko jàngal lu bon ngeen am jot te sibbutu wala la mën a xilifaate te sibbutu nañ waxante dëgg lekk comédie yi may def nii lu ci ne ma ngeen ni mukk naa ko ba mbala ngeen dee ñaag yi bu rëyee it <coughs> yéen seen ñaag yéen seen ñaag yi seen maam yi doon ñaaga ko bu si yéen laa ko gisee <laughs> hmm. tax ngeen ma wàññi suma ñaag bi sax rus koo lekk yëpp kooku ma ne yow dangaa xam dara ak maa xam lu bëri kay mag ma ka maa bëri xam-xam surtout fa ñuy wax ne dëmm laa because maa ngi lekk si kanam nit ñi ok askan wi lii problème bi mooy ñoom suñ foogee ni ñëpp dëmm lañ soo ñu ne yow yaay <clears throat> te ñoom ñooy dëmm bi moo tax ñu foog ñëpp dëmm lañ soo gëmee ne ñëpp dëmm lañ mooy yow dëmm nga moo gëm ne dëmm am na yéen ñi gëm ne ñëpp dëmm lañ su nit leen waxee ne yéen dëmm ngeen moo tax ngeen gëm ne ñëpp dëmm lañ loolu moo gën a make sense yéen ñu wax ne bàyyi foofu ñëpp dëmm lañ ngeen see xam dara ngeen koo doon moo tax ngeen gëm ne am na du loolu moo gën a make sense dañ koo gëmut <coughs> ku gëmut because du ko moo tax gëmu ko nga ne kooku na ko gëm bàyyi foofu mbala kooku moom la da ngeen baax su ma lekkal comédie mi de waaw <clears throat> so guys mu ngi noonu noonu lañ koy toggee so guys nga def ci sa jimboo wala nga def ci aja ak man lu ma def mooy lifin laa def um, time la tudd xaw ma seasoning boobu dafa wutee ay jimboog ay aja time boobu noonu laa def ak lifin ak soya sauce moo tax mu ñuul nii soya sauce bee ko ñuul nii waaye bu la neexee nga def aja wala loo xam pare def xorom ku fi bind bind yu bon ñu jaale borom nga bolok ko yëngee ne maa bugg a warga diwtiir gis mu ko lekk ak kaana gi warga laa ci war a teg ndax ma nekk Afrique dëgg maa nam ma Afrique depuis corona ñëwgut waaye ren incha naa dem de ne yéen luy seen yoon ci sama lekk yi moo jaaxal waane ngeen te si butu walla lekk mi mënta wàññi askan wi dara duwut lu bon <clears throat> yéen daal su fekkoon ne may nekk di juutoo ko waxee xaj ak a saaga ndey moo leen gënal daan lekk comédie yi ma def <laughs> doom dëgg <laughs> ma defee lu ma def may def tàcc ne nam <laughs> daf rek mooy lekk waa aca kon yéen itam ngeen ngeen dee lekk de jërëjëf jërë ngeen jëf yéen gas bi kon du ngeen di seen lekk yi doo si miine du ngeen di lekk oh my god donc dëgg nga tas ma ndox maa nga fële peppa maa jàll na yëg naa ko <coughs> dem na ko sa sa dem na fu mu warta dem <coughs> fa curu fële aadi ah soo dal ngeen ma Papa bi jaar na fële <coughs> dana dindee ko incha allah bu ko dugal fële it yàlla dana ko lonki dindi ko taxaw leen ma waxal leen jéggal leen ma ngir yàlla rasulullaay ah kenn mësul leen a gis dof bi <laughs> yéen ñi wax yéene dof yëpp yàlla ngeen dof bay day di ko sangoo ca kër kaas yaay yële gune di leen daw <laughs> du ngeen a soxore <laughs> mboolee koo mus a bindal dof yàlla nga dof bay day sa day bopp yi di ko riiboo gunee yi di la daw Afrique ca kër mango yi ñu yóbbu la Afrique bu dee bitim réew nga ne jërëjëf <coughs> ngay day di ko riiboo nii gune di la daw weñ topp la du ngeen soxor di leen bëggal si ngelaw du ngeen ma donee di ma woowee da kon yéen wetu leen seen juróom-ñaari maa ngi wetuñ ndax nii léegi nii ngeen di def ci kër mango yeeg fu ne nii lii bu fekkee moo tax ma def kon ñun suñ juróom-ñaari maa yëpp a def ba <coughs> am ñu bëgg dugg waaye duñ dugg de maa ngi lekk duma jël nit bët baaxul jërë ngeen jëf bët baaxul xalaatumaa jël nit ñi maa ngi lekk yaasoom ak sa xaw ma lan ku dem koo xeesalkat bu si butu la gisoo ko xaw kanam gaa nga weex bu dee mu ne noonu mel ni jinne ji si butu la xeesalkat <laughs> yu bëree ma bañ ma ne xam ngeen ne tey ma a def vidéo ba xam jigéen bu dugg laaj ko nit ñi ba ma jël lifin bi nataal ko pose ko ndeysaan mu ne fa bind comment si àngale foog naa gambien la mu ne man maa tax mu ba xeesal ni may waxee xeesal ak suma ñuulaay fa ko neex xeesalkat yi may mere xat yi yépp lu li ngeen war a def mooy <laughs> ngeen def seen bopp nit te ba seen xeesal yi mhm. te nangu dëgg gi dëgg bañ koy nangu moo gën ngeen ràngoo xeesal yi la di defante ni ay jinne si but <laughs> piti pante waaye dal leen nëpp te te gëma seen bopp waaye dal leen <clears throat> what is the name of this food? <laughs> this is called um what's um, you I tell you before stop eating your left. It's not left. Even if that was left, how is that a problem for you and the community? And even if I was eating with my left, who the hell are you to just sit there? I told you before, stop eating with your left. It's just left. It's not the end of the world. It's not going to kill you or anyone. <coughs> bañ a gaaw ci bloqué nit ñi boo defut noonu fañ lay fitnaal moo tax waaye seen juróom-ñaari maam yépp tu bala maa dee nag ñu naan li ngay lekk fa bëreeg ngay gaaw woon sa lekk geeg doo koy yéeg <laughs> jërëjëf axaleen rek nit ñi nit ñi doon nit ñi nit ñi may doneetee te xam ne commune def xaj yi may xas yëpp danañ jaare xaj yi de man kay suma yaay xeesalu sa yaay da doon xeesal never xam naa si moom laa jàngee gëm suma bopp gi suma yaay xeesal ak bañ xeesal <clears throat> suma yaay rek si gëm boppam moom laa niru yéen ngeen a sibbu danaa leen bolox ñu jaale leen de xay yi may fitnaal yëpp <laughs> xay yi may fitnaal yëpp laay ñëw block si what is your real language my real language that's what I'm speaking so what do you mean what is my real language I'm not speaking any false language I'm speaking my real typical language <coughs> Ami bàyyi kaani xalaat <laughs> yaa dof de <laughs> yow kay yaay dof bi nga ko jëkk jaaral sa leel bi ni suma bopp bi <laughs> xam góor ñu leel ñi lu tax ñu naqari deret mais ni Ami Jóob mu si but fañ xamul kawar moo tax baaralan Ripetulo. In generale. xaw ndaw géej yu foroxta neex wala géej yu de supp kànjare laa ko woon na de <clears throat> yëngee ne fi ne ni su ma néeg maa ngi fi xamee koŋ koŋ yuñ galaase xamee fi jën benn jën ma dese nag jën yuñ galaase mooy jën yi ma jëndoon noonu xawe fi géej gi yéet tuufa netetu yépp fi ne xam naa ko suma néeg comme marché Banjul rek xaw ku xañaan fi ne dañ ko jaale walla ndéggal giraar naa ba lekk moo xamul lekk I don't have food and you are doing this to me, please. What the hell? You have internet, but you don't have food. How do you afford internet and you cannot afford food? You can just fast. God will give you um tiyaaba. Kooku mu ne <laughs> naa ba lekk gi may lekk moo xamul lekk ma ne ko xam nga njëgi internet te xamoo lekk kon na nga xoor yàlla bindal la tiyaaba. man ma dégg ne yenn yi fañ daan toog duñ xam lekk te loo wàññiwoon ma dara so mu ñëw si yàlla lekk dana ñëw yal lekk bu baax dikk baraw lii lii rek la ak sarde waaw ku ci ne fekk nga xiif bay waaj a dee yaa koy yëg ci dara jéggal ma yàlla mu mu mu su ma doon yàlla doo xiif kalaame ji ko yàlla taxoor te jàpp si yàlla kaani huu sardin rek laa mën a lekk ni ma buggee sardin ak baax ci yaram na yéen ñi koy xeeb moo tax seen yaram yëpp du wér saa yu ne naa ma looy diwoo ak nangam ak jox suma yaram wér gu yaram gu dee xam yu baax yu may lekk yéen du ngay lekk lu baax pare lu baax lu ne ngeen fa ne fa salte wala dafa yomb wala nangam waa kaane gi <coughs> yaa salte yaa mën a fen ngaa day ma di ko lekk xam yow fi ne moo fayoon junni sax da xamoo barkeel day ma di ko lekk kon man ba ma saltee lu ma def sa juróom-ñaari maam yi ni ñuy lekkee ma di ko def kon ñoo ma jàngal salte képp ku may xasee salte surtout ku jógee Gambie ak Sénégal ku du tubaab buñ jaale kay <coughs> tubaab bi sax seen maam yi nii lañ daan lekkee bot you know ku jógee Gambie Sénégal Afrique in general di ma ko xase wala sa waajur jógee Afrique wala sa maam yi you sa xeet bi daal bu dee nit ku ñuul euh, Amérique yi nga sax sa xeet bi foofu la jógee <coughs> xamal ne borom fa xamee jikko xaj taf xeetam ba yëpp lay xas dafa gëma di boppam te di ko waaj a jaale te duma ko nangu kon saltiwu exactly xaajuma salte lii sa juróom maa ñaari maam yi di ràcc ca leen ca ker ñeleen ca ker mango yaa ker kaas yaa yéen ñu di fa ràcc ñeleen depuis juddoo goo sa laaxi ngéntee ñu daan ko rippee nii ñoom ñu bari bokk benn boo di rippi tëfli ji dugg ci laax bi ñu di ko rippi loolu moo gën a salte lekk laax together with ay nit te man loolu faale moo ko mën naa ko de <clears throat> man du may seexlu nit ak wala foog ne maa gën nit ñi yéen ngeen a fóoyta si butu te foog na yéen gën nit ñi mooy seen problème te ngeen di day di nelaw di ñaq te bu ngeen di dee sax yi wan leen nag ngeen xam ndax malaaka ngeen am déet fuuy ba xaay dal leen suñ doom yi suñ famille bi bu dee taalu bi yële nit ñi di sarax différent maalo ñu di ko boolante ndeysaan différent ndesit di ko lekk te jógee suñ xeet yéen a bon yéen a te bon te naa féq bu leen tax ma jooy sax gune taal ba yële di wër digg Dakar ak fu ne xame ay poti ngàtt yàlla nit ñi leen ci di ko lekk yaa leen gën dama dimbale leen kon gannaaw loo fa salte ay ndeysaan mënatuma lekk tax suma xel daj na gune taalibe yi gune taalibe yi niñ may def suma xel bu leen daje ñu di leen dóor boole si lekk ndesit ñi di leen dóor bala maa dee nag bu waane yu mel ni ay jinne ko di waa nag salte xëy <coughs> askan wee waane te si butu ta soxot soxot ta waane te si butu te féeg ami my dad still love you <coughs> moo koy yëg loofu ma ko oh my god xaw ko ba di ko lor sa bot mën naa su ma ko xamoon lor ko ba dafa des sa daat ñaata la am ak nu mel <clears throat> xam ngeen love mooy lan love is not just because nit ki nangam wala nit ki nii la mel non love mooy nit nga xam ne nga war a tànn koo xam ne fay xam ak yow jàmm respect la bugg la gërëm la understand la yow góor gi ak jigéen ji yëpp yéen ñaar yëpp <clears throat> loolu laa xam xat yi moo tax tëb ma sëy du may seet nit ki mel wala lu xam love is blind love is only blind if you yourself you're blind you know you yourself you're blind then love will be blind you're not blind you open your eyes then love is wide awake love love love loo mean love love love nit ku bugguta ne di njaaloo ak tëdd ak nit ku ko takku dee dana wax mbiri sëy ak love yéen ngeen a waane si butu nit ñi nga xam ne xamuñ jëkkër wala xamuñ jabar ñuy wax mbiri loof ngeen di dee nit ñi xam jëkkër ak jabar sax fañ ko war a wax mbiri ni nu gën a baaxee koo xam wala xamul jabar te bugg a xam jëkkër wala jabar su waxtaanu si loolu lu muy waxtaan ay mbiri drogue wala wala mbiri laalante ku muy laalanteel kan la yow lu tax nga nga lu tax buggoo mu wax loof ak waxtaan ko pour nit ñi you yeneen nit ñi mel ni moom dégg wala jos nit ñi you know kuy sëy sax ngaa war a déglu waxi loof ndax nga bu baax ñu suy askanu loolu lañ xam sëy ak loof waaye yéen ngeen a naa féqata soxot xay yi may fitnaal yëpp laa wax ami xoolal xawma lan yow baara nga loof xam nga ku ma love te doo ko xam yow am nga jëkkër walla ami xaw xawma lan jékkal na ma jeexal suma lekk gi te maa xaw a suur sax de ma ñëw war la góor ñi boo leen toppee fa ñuy bugga ne di la xéega ka def yow mhm. fii fa am ak góor gu fi dëkk gox ne fa ma toppoon bu yàggul na la te góor gi ak góor a Gambien la fa ma gis ci vidéo yi topp ma bind ma Facebook ak yooyu naan ma I love you xam nga ñun ñu bari ñu ma dee bind loolu Facebook ak ku ne <clears throat> ma du ñëpp laa dee xëy waaye léegi nga gis ci kenn nga ne ah kii dee niru nit ma xëy ko you know <clears throat> ma ko waaye <tsk> fas si butu de mm-hmm. ndax ne bugg naa xamante ak nit waaye lu ma bëgg mooy ñu tasee si biti waxtaan ba xamante bëgg maa tëb rek dugg góor ci néeg ku ma takkut mu di ma kar mu di ma baab daal maanaam bugg a def loolu daal naan ma maa bëgg a ñëw bësal la sa gannaaw geeg ngaa sonn nag yooyu noonu ko ne ko ak suma sonnee lu ci yoonu faalewul suma coono ba du ma bësal gannaaw kese fu may sonnal teg ci bësal gannaaw pare sonnal ma narañ narañ bañ di ma waaj a jaale moom la bugg a def bugg te ci bësam gannaaw de ma xam ne xaj la ma di ko seetaan ne ko noonu mu bind bind ba sonn ma ne ko noonu xam naa mu may yundu ma seetaan ko mu bind ba dee noppi hmm. te mu ne mu nga xamee jabar Gàmbi de di wut kum xiig noonu lañuy def nag ku leen ñu xiig suñ demee ba tasee jigéen ñi nga xam ne ku ñëw rek ñu ubbi seen tànk yi jigéen ñoo jox leen feebar fa ñuy gàddu feebar ndax àddina si yëpp lañuy ñuy tëdd te bu ñuy xiig jigéen ja duñ sol kawaas bëgguñ seen bopp kawaas yi neeloo ñu duñ ko sol dañ koy hiig ci ngelaw noonu xaw suur naa wala xanaa ba maalo mu les ma yaram wi du wàññeeku de <coughs> duñ sol kawaas yi neeloo yi ba ñu hiig borom si ngelaw ba pare dem hiig jabar ja noonu moo tax ko ci gën nga feebar bët yi xonq coy <laughs> duur borom bët yi xonq yi ba feebar ngir yàlla <laughs> xaw ma si dara bi leen ñaan naa leen mais wax rek xaw ma si dara bët yu xonq feebar la ñaan naa leen ngir yàlla <laughs> dana xaw musiba bu leen def ko am bët yu xonq ngeen daw ko <laughs> du ma dog da xaw ma si dara ndax bët yu xonq fee feebar nit ñaan naa leen ngir yàlla <laughs> way dinaa tee bët yu xonq taxut a feebar damay wax rek barki yàlla may comédie rek xaw dara ñaan naa leen ngir yàlla Oh my God. kii dof kii dof la walla déedéet du dof de ah yow at least yaa ngi laajte <laughs> ndax dof laa wala lan <laughs> xaj yi nga xam ne laajte ba ñuy ñëw rek xooye ma dof ba maa xaj yi rek dangaa neex nag <laughs> man kay mosuma ba xam suma neexaay ba yee jërëjëf jëf kii lekk rek la wadda what are you eating I'm eating something called ñànkatam very simple local

amee loolu dafa xaw ma lan sonn <laughs> bañ sonn amee mooy jëkkër xat yi yëpp waaye may jàpp si yàlla kay mar naan duma tax a naan fóoti <laughs> faa góor yu góor yu bon yoo xam ne waaye are you crying I'm not crying fa yëg xalaat ne amee wala ko sonn tax amul jëkkër xaaral ma dem yëg ko waaye bu ñëwee fii lañ may fekk wala duma ko nangu man rek si muñ coono <laughs> monsieur chronique ba ñuy cagata bonte bu ñëwee <laughs> du ñoom ñëpp de boobu ñoom ñu si bëri soo léegi fi ñëwee bugg laa indi seen bopp te xamoo sax you know <coughs> mu ne am yoolof daal lan ami bëgg lekk ngeen maa yeb mais fir musuma lekk gi taxul ne maa leen gën a bëgg lekk man ci suba ba tey xam ngeen lu ma lekk boolab ruy bu ma leen won noonu super ab ruy bu ndaw bu ma leen won noonu ak lii ca suba ba tey yéen ñaata lekk ngeen lekk ndékki xañ reer sa suba ba tey super ab ruy bi ma doon naan fii ak lii laa lekk <laughs> da ngeen ma bari ami kaay ma takk la ñaareel ah. what seen ñaareel seen jaxaaxoo yi ñoo koy nangu yéen xam nga yéen yu bari ma bëgg a takk taa amee lu tax may ragal mooy dama dee foog ne comme ni ngeen ñemee seen xaaw yi noonu ba tax ngeen di tëb ne ngeen di takk jabar yi noonu just going crazy ñaareel ah, ñaareel <coughs> daf dee tax ma pare su ngeen ma takkee noonu ngeen may def like comme ngeen di continuer di wuti ñetteel wala just continuer di wuti jigéen te man duma nangu loolu mooy problème ba ami day lekk duuma ami day de ami jóob laa tudd ami fay lekk la duur ami day lekk nga néew ma di day lekk laay def ay sa xawma lan ay sa muñ jaale mu ñaaw moom jànqa baara bi kanam gi ni góor gu sibur <clears throat> juule xawma lan man ci yow laay yem xam jërëjëf xam na ku may donee sax yaatu ah jëf yow jërëjëf janxa baara rek la naw danaa tëj ma tiktok bi ko bëggoon a tëj waaye yàlla moo nanguwul suma namba bi gaa yi xamee wuñ ko ni kon ko try naa lu ne ñu lànk <clears throat> danaa ko tëj di use ami xolof english ba uh, ami xolof um, yeah ami xolof english di fa def lekk english comedy english lekk ak jos li may def yëpp ma di ko def si english <clears throat> ngeen noppaliku mool nga oh thank you <laughs> mu ne yow ku lan lan fay fen ku la am na problème fay fen lu mu liggéey nga lekk fay fen man du may lekk lu seer sax lu ma xam jël fay fen te man sama bopp may liggéey fay fen lu mu wax fay fen lu mu waaj a wax fay fen billaahi bàyyil soof waay what the hell where did I sell them myself fay fen kay <clears throat> ami mënul togg ku ko wax fay fen ku wax ne mënuma togg yi fay fen li may lekk ni sax fa neex ba bugg a dee ngeen togg yu bon yi ngeen di togg diwlin yu bon yooyu noonu faraay ko diwlin yu yomb yi ngeen di jëndi ko faraay ngeen di xaru man naa ko ma ko bugg fay rey su ma koy def sax olive oil laa dee use waaye diwlin yu bon yi ngeen di toggee ni diwlin yu yomb di xeesal ak lekk lekk bon ngeen di xaru foog ngeen wuteeg man nga loolu dosin mi ne mënumaa togg jos yéen ngeen di xaru <clears throat> te yéen si bëri seen jëkkër yi bëgguñ leen togg rek tax ñu takk leen alaay jigéen ji mënta togg kay kat lay wut chef maanaam chef free chef waaye takkul la pour loof la soppoot la nekkal la fa yu nu daf la lekk togg pour takk xaw ma togg xaw ma subhanallah yàlla bu mu la togg amin <laughs> daf la takk pour jëkkër ji mel ni Ami Jóob mu sibutu ngeen am takk la pour lekk allo jërëjëf Yatou thank you so much for that donation I mean it is self not self self what yow man ngay jàngal àngale man maa leen a dégg àngale yéen ñëpp président yi Amérique bi sax maa ko gën a dégg àngale anti Ami looking cute thank you not self self what which one are you even trying to correct jërëgeen jëf who cares about the different selves I don't know selves xaw the different self <clears throat> ami doo selem de <laughs> I know <laughs> ah. <laughs> maa ngi wàññeeku seen yoon ñëw si ami sa peru bi moom la fii tey moo fi tey what yow doo dem man kay dem na man mi dem ba àgg si Angleterre jógee ca Kermango ya nga naan la te maa fi indi sama bopp lijjanti sama bopp te boo ñaar fukki at ak juróom laa amoon boo fi ñëw nga ma lan man rek si dem China laay fële <coughs> faatoog aadi baña faatu ganaar la toog démb reer ñun ñëpp loolu lañ reere ganaar góog noonu moom lay reere tey moo aadi walla aadi lekk leneen aadi daf dee defarabu ko mu lekk gaa yi bëgguñ yenn lekk africain yi waaye dañ jëmma a seen bopp lekk magi jëm mooy aadi bu la toggalee fii ay pasta ak ay ganaar ak ay lu ne wala yenn yi la dee def si oven bi aadi rek ak poté ak potéto mën naa dundee potéto bëggul lekk africain te duma leen di forcer time bu nekkee xale dama leen di toggal leneen waaye léegi mën nañoo toggal seen bopp leneen yow lu ci sa yoon yéen lu ci seen yoon naan su ma gunee ñoo la nuroo xiif suma ma gunee ñoo la ñuy lekk yéen ñi si bëri nga xam ne seen gune yi seen xeesal bi rek yéen ñi xeesal yëpp loolu rek war na ne dooy ngeen xalaat seen doom yeeg seen xeesal bi seen doom yi ñuul ngeen di xeesal di wan di wax seen doom yi ne seen der bi baaxul man mi la jur sax bugguma ko moo tax ma dindi sama doo tale loolu ndax ngay tale effet ñu lekk <clears throat> sa doom ji ñuul nga ribbee ko xonq wëccee ko ñuulaay bi te doo rus doo tiit di feccakat enjoy looy fecc ni lan la nga war a gàccee dugg si ron lali sa doom ji ñu nga wëccee ko ñuulaay bi yow sa bopp nga xonq ni jinne ji si butu ñoo nga naan Ami Jóob nanga yéen ñi xeesal yëpp mën leen maa xastoo su ngeen may xas rek moo dee jàpp surtout yéen ñi am doom yu ñuul wéru leen te du ngeen rus ko ngeen di xas mu naqari ko fa feebar <clears throat> noppalu bul ko jot doo ko baax xañaanta si butu ma koy jaay de xaj yi xeesal yépp a ngi ñëwaat di ma xas mbooleem ku ma xooxee dof de bala ngaa dee danga dof di ko sangoo danga day di ko sangoo danga dof ba day di ko sangoo xaj buñ jaale ji dëgg gi ma wax sama vidéo yi danañ la jaale waaye dama ko bari xalaatuma ko waaw ba ma tàmbalee vidéo tey ñaata xati yàlla di seen dëgg gi laay wax duma ko wecc xaj buñ jaale yi danañ ko suuli waaye duma ko ba xalaatuma ko su ko bañee na def boppam nit ma jàpp sama bopp di ko seetaan fii ba mel nit jinne yi si butu <coughs> gëmari seen bopp te féeg te bañ seen xeet bañ seen askan bañ seen xaada xeeb seen askan surtout xeesalkat yi moom ñooñu suñuy wax understand naa ko parce que ñooñu dañ xiir seen bopp xiir seen aada xiir seen cosaan you know so ñooñu suñ may xas si liñ lekk gi may def wala anything I know wala ni ma nekkee local ñu xiit ko I know because ñoom fañ xiit seen seen der bi sax forum lañ xiit you know waaye yeneen golo yi xeesalut ba pare di di mel ni jinne yi si but mais nit biir xaw nañu si but ñu ñun ba ma ak ñoom ami loo xaw ma lan togg xanaa ñànkatam yow black is so bright what's bright what type of english is that am yow bëgg naa la jërëjëf lan mooy sibutu sibutu xanaa fa la dal yow yaa la màttagut bu la yooyu màttee your black is so beautiful thank you it's because I love it I love myself when you love yourself it shows on your skin doesn't matter what color you are <clears throat> you hate yourself it shows you're gonna look so hopeless and insane yaa dof <laughs> no problem oustaz yëpp danañ leen jaale léegi moom it demal YouTube te dimbali ma même may ataaya du léegi jéggal leen ma daal waaw youtube baa nga ne la wuti leen musique duuma seen jigéen wanaa dara yépp rek ñépp jéggal leen ma tuu yéen ñépp baleen ma xamee ngeen ma xamee ngeen ma te xees xees ngeen te xame ma ami xala xama lan raka raka rakasul 어, oh, no, pareeguma bay raxasu lu ci sa yoon soof nga torop if you play music just play silent silent Dion you want love song nice calm music am ah, ile tànka si butu xaajuma si butu yéen yéen si butu moo dama dee def loolu ko salte Some Nigerians look like some Gambian, we're all African. What's wrong with that? Do you think better than the Nigerians? <clears throat> every tribe and every race have bad people. Some Nigerians are good, better than some Gambians. So why you talking? yow bañ la jaale dama la nopp torop jërëjëf fa xam ko bind fii ne fa ma nopp torop nga far wax ci jeex you looking good thank fay fen fay fen kay is natural and beautiful I know right so nice don't know why people hate themselves so much and that's sad guys I mean, you look Chinese. Okay, that's nice. <coughs> I'm so guys. My soul. ngeen ne bëgguma léegi ndax bu ngeen dégg ni may lekke te bu ma des maa suur ma ko naree jeexal du baax xaaral ma jàpp si yàlla daba ko waaye barki yàlla fa neex taxaw leen ma lekkaat ci géej gi tuuti ah géej gi ma ko war a def ci fridge bi denc ko ndax géej gi wii jeex na waaye jeexut lii bu doon supp la ba nga def ko ci mu yàbbi ci biit supp ba fay gën a forox te neex togg naa ko ci mbaxal mi waaye géej wi yëpp lifinu ndax mbaxal bi fa gaaw moo tax thank you you like my skin <laughs> porof ta ndaw géej ju foroxta neex waaye fa forox bu ëpp lekk noonu suur naa to be use a knife and fork no why will I do that my hand is better I love myself. I love my hands. Why should I use that? Like, I don't have hands that God gave me. Like, my hands are dirty. They're clean. They're fine. I don't have nails or anything, so I don't have extension nails. I can use my hands. Gis naa lekk salade fan yii oh my god boolaam salte wadda xaj bu fi ràng na naan ma salte bu jàppoon góor tey ba di ko laj laje te góor goo xam ne surtout bu ko joxee xaalis wala dara góor goo xam ne ko sax koy laj laje de góor ga tilim tilim muy jaay romantique di lay góor ga su ko góor ga jëndalee oto wala téléphone wala dara feebar bu góor ga am yëpp dana ko jël ci peelu nag sangu ba set tus nga lu ñëw di ma xas mais ni jinne yu si butu xay yi may xas ni ñoom ñu si bëri noonu la ñuy xamoo loolu xëy yi may xas nii ñoo ñu si bëri noonu lañuy def noonu tax bu may xas duma leen faale fu ma jàngee lii yëpp seen juróom-ñaari maam yi xommeeku <laughs> xommeeku ni màggatam junni at ci kër alhamdulilah rabbi alamin jërëjëf guru rek ma manqué fi mu ne ak potam ndaa bu ma naanee moo tax moo tax moom ma téléphone ne ma doo màggatam junni xat ca li ngeen di bay seen bopp te féeg ah lii sax waruma a def nii laa war a def noonu la paayeeg maire yi de Afrique suñu taxasoo ba pare pompé ko seen kanam gi nii ko loolu ci ne yéen ngeen a waane te féeg te bañ seen cosaan bañ seen xaada métit wi ngeen dundaka bañ lu leen di fàttali seen seen cosaan yépp bañ lu leen di fàttali you ki ngeen dox foofu ngeen xuuteeg man xaw suma xeb bi dee fekk wàllee ko encore ah, bii seen gu foog kolleeku ma doon jéem a jàpp ak moom soo defee xefi boo jàppee mu kolleeku sal de waxtaan loolu nu sal de <laughs> yéen ngeen a fuuta si butu kon yéen su ngeen xamee jëkkër wala jabar du ngeen ko bégal na ngeen koy seexlu wala ngeen di dem di macc àddina si yéen subhanallah pare ñëw si man naan ma salte di jaay waane wanetofake.com dem seen jëkkër seen jabar di dara dara après ñëw si man naan ma salte loolu moo gën a salte lii da ngeen koy lekk mu dugg seen gémmiñ gi perruque bi maa koy jaay ndegam tey maa dem sa liggéey ba de xaw tuuti ma dee si liggéey ba de jéggal leen ma si mbiri baara <clears throat> you looking good fa am leen ñu bëgg a dugg man ma doon lekk taxaw leen ba ma ñëwaat ma ñu war ko ambiance ngeen su ko dugg hi hello ami olof perug lan waa yow foo dëkk ci Saalum maa bokk maa bokk faana fana nga dee malan dégg kii laajte dafa am ku ma bugg right now fa ni ku may bugg right now lu ci sa yoon ku ma bugg sax duma leen soxota naa fekk ku leen di wax ma kum do bi ràng leen diw laa bëgg ak nangam yéen ñu naa fekk ñi da soxot anyway néew moo di am kenn ku ma bëggoot ma bëggoon nit duma leen ko wax amin mun naa leen wax ne dafa ku ma bëgg ni ko noonu bot duma leen wax kan la you know nit ñaa ngi may topp waaye jëlaguma si I don't know because mbëggeel is not about uh, nit lu mu xam wala nangam su dee mbëggeel gu yàgg nga bëgg gu baax gu healthy mm-hmm. su dee sa mbëggeel gi nekkoo di ko bees si xalal wala kawlal mel ni cagabuñ buñ jaale you know <clears throat> kon dafa am yeneen yooyu seet ami soo xamee ku bee bëgg teel sa baay wat maye la sama baay gaañu na bu yàgg <coughs> but yee xam naa um, ku ma maye kay mhm. kii sëy ak sama yaay mu ne maa mayee sama nijaay mu ne maa mayee waaye lu seen yoon si man you know ku may takk wala nangam loolu is not important you know du problème buy sonal askan wi wala nangam oh ah, sama xef yi mun na ko bind <coughs> du leen jël surtout yéen ñiy bind turi baara yëpp ok xaaral ma bloqué foofu danaa ko miir beneen yoon su ko bind ma bloqué di wax naa ndax nangam taan bu rëy baax na am na solo walla Stupid idiot. Cassara, I know, right? Cassara, I. Pardon me. Ami dëkk ci Saalum fan nga dëkk Saalum ami ma laa bëgg jërëjëf am hello girlfriend laa bëgg <laughs> looy defee girlfriend girlfriend is waste of time ngay hut ba nit koo xam rek soo ko xamee mu hóolu la nga hóolu ko nga sëy ak moom bul nekk ak nit girlfriend because girlfriend dafa des bo su ngeen nekkee girlfriend tam is better bu ngeen nekk di tëdd and stuff because te is better bul nekk def si moom xaalis bu bëri surtout boo xamul xaalis bu bëri sa bank account ok because du sa jabar te jos westo xaalis góor yu bari dañuy wees seen xaalis si jànq di wees seen xaalis si um, time ak xaalis si jànq wala si jeeg yi ok moo tax duñ dee mën barke surtout buñ nekkee ndaw time buñ war a spend di lijjanti business buñ war a def wala lijjanti métier buñ war a def time buñ war a def di dajale xaalis time bu xaalis bi yëpp la ñuy jël ak time bi di ko def jox jigéen ñi te sa sa xel mi nga leen koy jox sa doole ji nga jox leen ko so daf la dee tardeel focus soo xamee ñaari xarit kenn ki focus kenn ki focusut ku focus moo koy raw ki focusut time am bi yëpp jigéen ñee xaalis walla cigarette wala sàngara wala stupid stuff moo koy jël keneen ki focus moom ngi busy di bil di bil di bill so balaa ñoo ne fukki at ci kanam këleñ si gannaaw so girlfriend is just waste of energy lu si bëri daf dee arrangé jigéen ñi gëmul seen bopp in a way daf leen dee yàqal seen àdduna waaye duñ ko gis so dañ dee gis fuñ ñu ciy jëlee surtout xaalis bu dee xaalis lañ ciy jëlee dañ dee xool si loolu rek wala su fekkee ne um, ñu ngi ciy jëlee tëdd ak nit wala ñu ngi ciy jëlee wax ak nit and stuff ñuy xool si loolu rek bot gisuñ ne mu ngi leen di tardel tamit hôtel ba uh, manager bu baax ba néew fa woon dafa feebaroon and ñeneen ñi fa nekk meluñ ni moom ba pare jos lu gën a tax ma bàyyi ko mooy góor ñu bon ñi te te miin foyee seen bopp te cagata bon subhanallah suba teel balaa ñuy génn fa ñuy lifin seen bopp ba pare jóor ko si si si wanag bi dem mhm. duñ nangoo jël sawa bi lifin ko nii ba sawa bi dem xam nga lu tax ñuy def loolu ñoo ko tey foog naa fañ bëgg ñu koy clean gis ko bi billahi ñoo ko tey mun nañoo jël sawa bi ñaari sawa moo fa de nekk bi si kaw nga xam ne dañ ko monté si tabax bi ak bi nga xam ne yow danga koy yëkkati nii mën nañ koo yëkkati nii def ko nii ndox mi rinse ko boobu waaye déedéet fañ koy bàyyi noonu si bunt bi dem <sighs> ay it so loolu moo gën a tax ma ba ko waaye liggéey bu xees ma tàmbali nii tam beneen liggéey bu salte la moom tam is like ngay daw dee daanu ci teen <laughs> just I don't know xam fu muy mujjee ak liggéey bi wat salte yi dañ xuute at least bii nii màggat yi feebar dafa xuute ak bu nga xam ne góor ñee ko tay di def seen jikkoy xaj di ko jóor si man ak yu bot it's crazy so yeah boobu noonu fay bi tuuti rek la ko bii xëppee fay bi tam baaxoon na si hôtel because dañ doon fay eleven pound per hour hôtel yu bari duñ la fay eleven pound per hour <clears throat> jëf boot dafa salte ba pare dañ la dee may tip danga fa dee xam ay may may tip yu bari so ba pare danga dee teel a wàcc you know commencé ñeenti am juróom-ñeenti waxtu wàcc ay ñeenti waxtu wala balaa ñeenti waxtu sax nga wàcc suñ guddee ba guddee la ñuy wàcc ñeenti waxtu genn wàll waaw te mëneja bu baax bu fa nekkoon ki feebar noonu dafa baax torop mhm. mu ngi ñëwaat sax ñu ne weer bi ñëw nii ku ak ka baax soo wàccee ñetti waxtu sax mu fay la ba ñeenti waxtu génn waa waaye dafa feebaroon mu jéegi ñeneen ñi fa nekk baaxuñ soo yeah booy man maa ngi wutaat even tey maa ngi apply yeneen ñetti liggéey man de si wut bu ma xam te laay dem naa si internet bi di apply xalaatuma ko toog liggéey bu ma fii fu bëri liggéey fii Scotland surtout liggéey yu bon yi def fi maa ngi wutaat I don't but hopefully we'll see but yeah maa ngi war a demaat si liggéey bi àllarba I don't know but wax naa wax naa ne dinaa wax naa ne dinaa email gars yi suba su gars yi ñëwee liggéey pour ma wax ak gars yi su ma fay demaataan dama war wax ak njëkk du ma fa jox demaat lay daal because apart from liggéey bi lu mu salte xamoon naa loolu loolu loolu is not a problem de is gars yi jubóowuñ ba pare stuff crazy stuff fa am kenn si ñoom ku ma doon yuuxu démb sorry burki démb <clears throat> te warul moo ne yuuxu mu ne ma baalal ma mën naa xam lu may liggéey fan yi yëpp te ofuma moo tax ma stress loolu du suma fault you know euh, kenn la si yeneen tubaab yi jógee yeneen dëkk yi dee bëri fii comme ni ma leen ko dee waxee rek bëgguma wax tur bi dëkk boo tudd Poland mhm. gars yi bëri Angleterre fii di fi liggéey te ñoom ñu si bëri sooy liggéeyandoo rek ñoom nga nekk nit ku ñuul duñ la dee bugg nit ku ñuul bu wax dëgg xam na lu may wax ni du ñoom ñëpp ñoom ñu si bëri mhm. fii Scotland dee moom mhm. man expérience naa ko lu bëri hôtel ma newoon sax noonu la ñoom ñi fay liggéey duñ duñ la may jàmm waaye waa tubaab yi dëkk fii di fa liggéey amoo ak ñoom problème waaye ñoom mayu nit ku ñuul yëpp jàmm nit ku ñuul fa nekk ñëpp a dee complain loolu soo um, soo kenn si ñoom dafa nekk si liggéeykat kaay bi nii te moom tam jubóowut ak yeneen tubaab yi jógee fii waaye plus man tam dafa ma doon yuuxu si od loo xam ne is not necessary after mu ne naa ko baal xàq so lu ma doon yuuxoo mooy benn maire moo bës uh, dafa maire yi dañ dee xamee seen benn bouton boo xam ne suñ soxlaa ndimbal dañ bës comme ça mel ni comme lii soo ko bësee nii rek ni ñi ñëw dimbali la daf day ring léegi soo ko bësee maanaam tabax bi maanaam tabax bi nu mu mel euh, yoon bi ngay doxee nii mu am ay néeg néeg nii you know mhm. yoon boobu daf day am ay bosa ay lifin yoo xam ne mooy wane numéro néeg buy bës pour nga dem seet néeg boobu nga dimbali ko soo léegi benn maire bës ma dem néegam di ko dimbali léegi euh, maire bu ne dafa bëgg dimbali ko mu dem seben waaye dafa bëgg a dindi tam lifin luq gi luq gi dafa diis ak semaine waaye meer boo xam ne la tëddut benn place ba du mën a jóg daf si am ñu ñoo xam ne du ñuy mën a jóg ëlbati ko sax duñ ko mën yàlla di ëlbati xam na ñoo xam ne dañuy mën a wàcc waaye danga leen di dimbale xam na ñoo xam ne soo leen dimbalewu sax dañ mën a wàcc waaye foog naa kenn la fa hmm, waaye ñeneen ñi danga leen di dimbale tuuti daal hmm. so anyway léegi meer bi koo xam ne la mun naa wàcc waaye danga koy dimbale soo meer yi mu ne mu ne naa ko dimbale génnee ko luq gi luq gaa ngi diis gann te luq gi ni mu diisee gann noonu mooy ne liggéeykat yi defuñ seen liggéey luq gi warta diis gann ñaari waxtu yu ne nga koo war a wecc waaye ñoom ñoo dee ñëw seet luq gi gis ne semaine na tuuti ñu ne loolu semaine bi diisul xaaral ñu bàyyi ko ba beneen yoon suñ ñëwaatee beneen ñaari waxtu ngir tayal so léegi maire bu ma nee naa ko dindil luq gi fekk man maa ngi ñëw liggéey si xees ma ñëw commencé di ko di ko dundil dindil luq gi rek kële ñëw ni ma ami kaay dimbale ma si si diw sàngam si beneen paa bi mu ne pour ñu tëddal paa bi si lal bi paa baa ngi toogal si toogu bi nii pour ñu génne ko tëddal ko si lal bi waaye paa bi koo xam ne danga ko dee euh, nit ñaari nit ñoo ko war a dimbal ñoo ko war a def bi ko du dee mën a mënal boppam dara ñaari nit ñoo ko war a jël solal ko ay bagage yi ñu koy solal noonu machine bi ba pare bu machine bi ekkati ko yéen a xoys léegi mu ñëw ma ne ko xaaral ma pare kii nii déedéet fekk dafa ñëw fëgg fekk maire bi dama ñëw rek mu ne ma tëjal buntu bi parce que ñoom dañuy dugg duñ tëj buntu waaye man dama dee tëj buntu bi parce que liggéey bi dañ la dee jàngal yëpp bala ngaa dem man dama dee tëj buntu bi waaye dama dugg rek mais bi dama tëjal buntu bi ngir foog ma ne ko déedéet doon dee tëj buntu bi ba lok ko nii nga xam ne ku ñëw su bësul su fëggu du duñ ko ma tëj ko pay lok ko mu ñëw fëgg mu ñëw rek ne kërig buntu bi mu tëju mu ne ma king-king bul lok bunt bi fii kenn du fi lok buntu ma ne ko maire moo ne naa tëj bunt bi ba lok ko pour buggul ma summi ko nit ñëw hmm ok waaye ñëw dimbali ma si diw ma ne ko diw de duma si mën a dimbali léegi xaaral ba pare maire bi fekk maire bi ba mu dégg maire bi mu déggee buntu fëgg dafa mel ni ku tiit ndeysaan daw làqu di nëbbatu buggul koo gis ko taatine ma ne ko mu ne maire bi man la diw daal di dugg maire bi ne ko xam naa ko waaye du ma dee bugg ñaari nit ne fi tamay def taati neen kenn nit gis ma ma def taati neen rek doy na ndeysaan xam nga feebaree it fa gëm boppam te ba tey te xam na luy go on du ne ñeneen ñi feebar te seen xel mi xamul dara léegi mu ne ko kenn nit di ma gis taati neen rek doy na waaye bëgguma ñaar nit di ma gisandoo te te man te sebeen rek la jarul loolu ne ko oh sorry taxaw fële daal ne ma am ñëwa dimbale ma ne ko taxawal ba pare kii ma jëlal ko beneen ngemb defa yóbbu ko si wanag ba pare solal ko ngemb gu loolu rek two minutes oh my god ah! ni man li ma wax war ma li ma def lu la te man maa ngi jos commencé ki rek mooy suma ñetteeli fan benn yoon rek laa liggéey ak moom sër la sa mu def ma loolu te benn yoon bi sax man liggéeyu moo moom moom mu ngi fa woon waaye liggéeyu moo nag beneen jigéen tubaab bi ak man ñoo doon liggéey bi ko man ba tey war maa liggéey man kenn because ba tey maa ngi xees you know soo dañuy wax ne man dama war a ànd kenn si ñoom te man sax bàyyi waruma woon a def dara bàyyi raay dama war na nekk di leen xool rek because man dama fa xees waaye xam naa liggéey bi ko defoon naa ko ay xar si gannaaw time bu maa ngi biir faatu moo tax soo léegoo léegi suñ busy dañ ma di wax ne ok defal lale defal lale because xam nga léegi ma ne ko bu ma defee loolu ba pare maire ba pare dem dimbale ko ba pare xaw ma lu mu wax waxoonati mu ne maire bii nii la de dafa naqari mbir su la waxee tëjal buntu nangam nangam bu ko faale soo wala soo koy tëj bu ko fii kenn du fii log buntu ma ne ko man maa si néeg bi soo su ko lokee is fine du maire moo ko log ma ne ko waaye maire bi de ko faale ndax man bu may tëree dañ ma wax ne dama war di déglu ñii bu ma leen jox defal dara lu leen neexul ñu dafa des si li nga def lan la waaye tëj buntu loolu dara néew si tout minutes sax mutu ko ma ne ko waaye yow nu ma yuuxoo si tëjëm bunt bii ni ma xam ma ne ko loolu de dinaa si complain because loolu is not right su dee yow nii nga dee liggéey mag bu xëy ni mën nga di ma yuuxu si ne naa bàyyi li ma de bàyyi foofu ñëw dimbali la nga teg koog si bi is not urgent jarul yàkkamti koo fa war a tëdd rek. oh loolu jarul wax ak manager is fine man dama dama sonn rek xam naa bi mooy fukki fan ak ñaar maa ngi liggéey te jëluma break moo tax fukki fan ak ñaar yëpp maa ngi liggéey te ofuma moo tax ma sonn ma ne ko ah yow kañ ngay off mu ne ba beneen samedi bi ñëw. ma ne ko ah kon de yaa koy yëg waaye loolu du tax nga di ma def ni mu ne waaye jarul wax nangam nangam ma noppi fekk maa jëloon ngeem luqa meer gi ni mu diisee gam nag ndox semaine bu bëri ma jël ko bugg koo won noos ba fa ne ba pare wax noos bi ne ko lii laa doon def kii xaaye ma ne mukk di ma yuuxoo ko jos di def lay crazy daal <laughs> mu ne foo gàddu luq gi jëm ma ne ko ma ko bugg a woni noos ba wax ko li nga def <laughs> mu ne ma noo jëru ko sànni luq gi rek ma ne ko déedéet ma ko bëgg a woni noos bi nu luq gi diisee <laughs> te yow nga ne bu ko bu ma ko wecc bàyyi foos naa ñëw dimbale la nga tëral kële <laughs> liggéey yi ngay réew a dee mu ne ma déedéet bàyyi ko bu ko wone bu ma you know nangam nangam baaxal ma si loolu ma ne ko ok ma daal di jël luq nga sànni ko waaye moom ku dem nag ne fa may bitiree dem boole ma noonu lañ dee <laughs> su ma yëgoon boole ko fu nekk nii fay foog ne naa ko boole ba tey fay dem ne leen ku xees gi fi ñëw nangam ak nangam gaaw njëkkalante wala mu koo boole fekk njëkkoon na maa wax ne ma place bii boole rek lañ dee nekk def aha mu ne man lu tax ni may bi du noonu daal lu ma demee ba ngëb loxo maire bi nii mais ni ko ko bëgg a yëkkati loolu du noonu fii laa war a ma ne ko man de ma dama ko doon ngëb pour toxal ko nii li noonu ay loxoom bi nu mu defen baaxul waaye nekku ne ma koo ngëb pour bipp ko man xam naa lii ndax def naa moving and handling bi you know jàng naa ko online si course bala maa ñëw te bu ma ñëwee fii tam si xajjimu bi jàngaloon nañ ko you know moving and handling ma ne oh que fii fa am benn fi ñëwoon xaw ma ndax kooku nit ku ñuul la ah, mu ñëwoon fii nii li daane benn meer dafa fen wax ne mën na moving and handling ndeka mënu ko mu daane meer bi si xoolis bi ma ne ko ah mu ne waaw mu ne waaw fekkut ma fi woon sax keroog ñëw ma woon liggéey ba nit ñi wax nañ ko ma ne ko man de man mun naa lii te yàggoon naa ko de ay xat si gannaaw tam ma ne ko man lii du ma si daane benn meer ci ay voice voice bi is easy pour nga use ko lonk leen rek you <clears throat> mu ne ma ah ne pat ma ne ko waaye moving and handling bi de course yow def nga yow yàgg nga fii mu ne ma ne ko waaye yow nekkoo di def yëpp mu ne ma ah ma ne ko yow ngay dugg si néeg bi doo ko tëj di wecci meer yi ak paay te tëjoo bunt bi te loolu fañ ñu ko xaayee fa ñu ko jàngale soo duggee ngay tëj sooy wecci borom sooy soo dimbale borom génnee lu xam nga ko war a tëj bunt bi te yow soo ñëwee bala ngaa laal meer bi wala paa bi nga ko war a wane ko diw mu ne la nga ne ko nangam laa lay defaral si may génne sa luq gi wala ma lay defal nangam du waroo ñëw rek dindi dara bi rek di ko defal te waxoo ko dara ma ne ko te yow nuun nga dee def mu ne ma ah <laughs> waa dëgg la kay dama ko dee fàtte sax yéen ni suñ bisee ma ne ko exactly kon nag liggéey bi kenn mënu ko exactly mu ne ma waa waa ndax yow nga xees nit ñi buñ la gisee fañ lay boole fii boole rek la ñuy nexee man sax noonu lañ ma dee def place bi fañ mën a boole te bon ma ne ko ah mu ne man sax maa bëgg ba liggéey bi ñuy boole rek lañ man ma ne ko ah bu la neexee nga boole ma yow sa bopp de mu ne ma non du ma la boole ma noppi di ko seetaan da fekk nit ñi ñu ngi ma doon wax tamit ne fu bëri affaire beneen jigéen ma doon liggéeya ndooral balaa kooku di ñëw liggéey ak man noonu mu ma doon wax ne kooku bëri affaire soo ñoom daal jubóowuñ you know ba pare ah it's crazy te liggéey bi dafa naqadi mbir xam na si ñaari meer yu naqadi mbir kenn ki nga xam ne su génnee tànk fa koy jël fem pomp ko ci tabax bi génn luqati ko yëpp ca lu fi nga pomp ko ca tabax ba ba tabax ba ñuul ku ko pomp ko ci mbubbam yeeg fu ne kawaram geeg fu ne la koy taqal ndeysaan tout ministre nag bu gaawee ko buy génn tànk rek luqati ko ci saasi ca ca luq ga xamoo barke du ko luqati nga war a ñëw di fomp loolu loolu rek doy na naqat beneen maire bu bugg bañ ni ki te réussite saa woo dem mu naan la niiga jaam bi nii génnal nangamal sa ndey di la saaga nga war a diil ak ñaar yooyu ñaar yooyu rek ñëw si naqadi mbir si fi ma nekk noonu ci benn flow ñetti flow la si benn flow bi laa nekk gum demaguma si yeneen ñaari waaye ñu ne flow bu ma nekk tam mu gën a xam nit ñu di mbir daan yeneen yi soo xamul lu tax ñu njëkk maa indi ci flow boobu foogoo ne loolu yëfi dof la kon fañ ma waroon yóbbu si yeneen flow yi moo meen liggéey kon li tax gars yi ñu liggéey bi nit ñi commencé di bàyyi rek commencé di bàyyi rek wax nañ ma loolu ndekete kon ñoom fañ wetut nit ñi kuñ jël rek njëkk laa indi ci flow bon bi bu dee niñ ma def noonu la ñuy def nit ñi te wax nañ gannaaw soo su dee ba yàgg fañ lay yóbbu ci yeneen ñaari flow yi ci kaw kon lu tax ñu ne ñaari flow yi xamul problème comme fii kon lu tax ñuy indi nit ñi xeex ñi fii fu métti foofu loolu kenn dana ko def ah moo tax nit ñi commencé ba xam nga man lu mu wax rek dama dee xalaat ok kon lii moo waral lii lii moo waral lii yëpp laa dee calculer soo noonu la xamaguma daal muy mujjee ak ñoom ba soo léegi dama bëgg a wax ak gars yi suba ma email leen wax ak ñoom waaw fekkee dañ ma wax ma dem wax ak ñoom ma xam fekkee dañ ma wax ne ma email problème bi ma xam waaye dama leen bëgg a email ne leen a wax ak yéen mooy jigéen boobu nu ma doon yuuxoo ak nu mu doon def bi ko mën naa am jigéen bi boole ma suma ko boolewut so ba pare jox su ma boolewut sax bugguma muy def loolu gannaaw mu ne woon def dee liggéey du off ndi ko bugg xaalis bu bëri moo tax mu sonn te naqari rek fu mu toll rek mu ngi naan ah, ma sonn ah, ma sonn loolu rek lay neexee the whole time ku dul off liggéey guddi boo xëy doo ma sa off weeru yàlla nga di ko liggéey moo jar lool soo léegi fay def noonu doo mën a liggéey moom si noonu bi ko moom di off xaalis bi man moom moo ko moo ko moom man si dee anyway danaa complain bi rek complain maire bi ma dee jaam waaw beneen meer bi riib day ci tabax bi faale mu ko you know dañ ko dee fomp ku ko war a fomp bi yoon fomp beneen yoon bi kële fomp wala léegoo leen ñun ñaar fomp ñun ñaar ñoo fa dee nekk waaye daf dee nekk ne su kii fompee di fomp day ji tabax bi këlee ngay def leneen di fomp meer bi you know boot faale fu ma loolu waaye keneen nga xam ne moom mooy wax nit ñi niiga di saaga nit ñi kooku laa gën a bañ biram te moo ko tay te du tubaab piir sax de tubaab ak naar fa yabaate moo tey dafu de fa yabaate te bañ nit ñi soo ñëw rek mu naan la jaam bi randuma niiga bi di la tëfli di tëfli nit ñi lu ne lay def nit ñi kooku kooku rek moom kooku daal bëgguma koo dimbale daal danaa leen ko wax jaxaran su fekkee ñu ne ma koy dimbale bàyyi foofu danaa ba liggéey bi xalaatuma ko what the hell non kooku dee sax ko gën maan xaaral ma ñëw bàyyi leen guys mun naa am danaa ñëwaat ñu warga su ma ñëwee ngeen dugg soo liggéey bu xees bi noonu la xamaguma daal fu ma siy mujjee boot <laughs> lii mooy problème bi you know <laughs> si liggéey voyage bi guys mhm. su ko paasee na xam ne ne nit ñi fa nekk ñu neex daret you know xamaguma seen jikko wat ñun duñ fay bëri sax si guddi gi ñun ñett rek la dee nekk ñaar fukki néeg ak juróom la ñoo ne si flow bi te ñun ñett ñoo fa dee nekk mooy man ak yeneen ñaari ak noos bi noos bi moom moom kenn mooy wër ci ci ñetti taax yi ci ñetti flow yi yëpp soo léegi-léegi mu nekk si ñun suñ flow bi léegi-léegi mu nekk si beneen flow bi suñ ko soxlaa ñu koor waaw maanaam su nit feebaree wala nangam wala nit wérul ñu koor ko mu ñëw su fekkee mu ngi feneen mhm. soo ñu ñett daal ñoo fa dee nekk te liggéey bi jafewul daara mhm. léegoo léeg ay fukki waxtoog benn yooyu fukki waxtoog ñaar fekk ñoom ñëpp ngi nelaw lu si bëri soo yow ngay toog defar kafe defar lu la neex toog lekk yaa ngi fa puupa seetaan télé si saal bu neex boobu noonu wala nga dem si beneen néeg ma doon waxee yéen démb toog xaar ba nga dégg bel bi nga jóg léeg-léeg ngay toog bay nelaw sax mhm. dooy def dara gannaaw buñ tëddee non buñ tëddee xees dañu dañ day njëkk a bale ñetti ñetti liggéey moo fa dee nekk suñ tëddee ñaari wanag yi nga xam ne dañ ko war a bale fomp ko waaye si bëri fomp rek ngay def sax ko bale ak euh, yi di lekkee dining table yi nga dem euh, fomp ko wala su fekkee dafa tilim si suuf torop nga bale ko fomp ko taabul yi nga fomp ko teg palaat yee kaas yu xees yëpp yu set yëpp nga ransale ko pour ëllëg suñ xëyee suñuy ndéexu ñu ñëw fekk ransale nga ko waaw loolu ak waañ bi tamit ñu bale ko fomp ko waaw waaye du dee tilim sax de waaye jos arrangé xaat ko ñu noonu ak saal bi gars yi dee toog di seetaan télé saal bu mag la nii boobu tamit ñu jël xuufa bi xuufa ko jël toogu yëpp ransale xaat ko defar te toogu yi sax du jaxasoo de bot ñu noonu tuuti rek soo loolu la liggéey boobu lañ dee séddoo ñun ñett du yàgg sax ñu pare you know mhm. suñ paree rek na toog duñ def dara ngay toog a toog a léeg ñaari waxtu bi daal ñaar benn yoon nga siy jóg wala ñaar ci ñaari waxtu yëpp waaw diggante fukki waxtu ñaar daal ba ay ñetti waxtu ñeenti waxtu juróomi waxtu yëpp daanaka dooy def dara maa la ko wax soo liggéey bi amul benn problème léegi si juróomi waxtu passé nag ba jëm juróom benn juróomi waxtu genn wala juróom benn waxtu si ngay commencé di leen xee time boobu la ñuy def dara buñ xeggee xees ak time boobu rek la ñuy def dara you understand bi ko dañ leen war a commencé léegi di xee commencé léegi di leen sang waaye du nekku ne ñoom ñoom ñaar fukk ak juróom yëpp la ñuy xee sang maanaam ay juróomi nit nga ciy xee sang leen mhm. wala ay ñeenti nit bi ko ñeneen ñi suñu waree sang sax ñeneen ñi duñ leen sang fa ñeen di jël raay tuuti rek ndox mi rek ak sagar bi nii rek ku def liggéey bi xam nga li ma wax tayal leen a sang seen luñ tuddee woos noonu luy wos I even know bi sax duñ koy def bu baax just cur cur fëris am like what the hell anyway so liggéey bi daal jafewut <laughs> jafewut dara ok guys maa ngi dem dinaa ñëwaat si kanam pour ñu warga may bi ok waaw jafewut de dafa nekk ne rek su fekkee ne gars yi dañ naqadi mbir ak meer bu dee saaga ni ñi noonu naan jaam ak lu ne muy hooyee nit ñi loolu moo naqadi affaire ak beneen meer bu dee day def ko ci tabax bi ñoom ñaar yooyu loolu mooy problème su ko pensé liggéey bi amul problème ok guys mhm. noonu la bitim réew noonu la gis ngeen xam yi ne suma kanam gi lii ay xam la hmm. ma ko war a diw su ma ko diw fay fay seen ngeen xam yi te ngeen ko xam la aadi doo ma jox vaseline bële wala nga jox ma diwgoo si taabal ah aadi looy def noonu jox ma diwgoo si taabal ma ñoo dem ba si kanam danaa ñëw ñu war ga si kanam aadi dama jox diwgoo looy xooli noonu jox ma diwgoo please ma diis ma xam yi le mentelaata boo jox ma ko xamul aadi xooli nga xamee iyeful dégg mu naa ma xaaral mhm. xam yi gis naa ko suma kanam gi depuis bërki démb laa ko gi léegi-léegi daf dee ñëw waaye gëj naa ñëw de te xel ay xam mhm, boo ko déeree doo ko gisate waaye maasaloo ami fa sibbutu torop ami man man loolu de du dëgg waxal baaram mu xawma laan boo daxal axal leen suma xef yi lii tax suma poosee xef yi du ma dee bugg a nekk di jàpp ak moom soo jàppee di julli fay tooy génn seen ngeen ñaari cat ci kanam yépp a ngi xoolee ko ami yaay lan xaalee ma dem sax xamul woon bind ok guys maa ngi dem yéen leen jàmm si kanam call me please ku lay call lum lay call lum do manam ba xaw ma loo koy defee de waaye xanaa nga bind ma tiktok ma jox la ko man suma account bi sax ma ko bëgg a tëj te ma koo try ba sonn ma koy tëj mu lànk ndig suma numéro bi tiktok xamewul ku xam ni ñu koy tëjee na ko wax tiktok xam nañ suma email waaye xamuñ suma numéro <clears throat> te text message bi ñu may text euh, code bi ñu may jox pour xam ndax man maa bugg a tëj account bi code bi ñu may jox pour ma use code boobu man koo tëj code boobu si si si mobile number bi lañ koy def te mobile number bi xameetuma ko beneen number laa lii de mooy problème nu konoon damay tëj suma account bi ngir mbiri baaram ngeen may wax nii ngir vidéo baara yi ma def dafa bëri mënuma koo delete yëpp danaa ko delete yëpp waaye mën naa koo delete waaye fa yàgg te xam nga tax muy yàgg mooy ne moom vidéo yu bëri yi ma ko defal du may gis duwat bi sax suma kanam bi rek laay gis instead of duwat bi ah ok xanaa ma nekk def nii su ma defee nii ba gis vidéo baara delete vidéo yi ma ko defal bëri kon dinaa delete ba sonn ba na ma ko ba pare gi nga baara su ma delete bi sax ngeen di topp di ñëw fi naan baara baara bi ko ngeen maa miin su ñëwee fi ngeen naan baara baara gi nga su ma demee si su amee xolof english bi ngeen di fa ñëw naan ma baara dinaa leen block waaw waaye maa bëgg a tëj account bi case close why you lose why close your account because nit ñi fañ ma sonnal si account bi ak baara saa ma ñëwee nit ñi topp ma baara baara di ma fitnaal rek moo tax bugg koo tëj ba pare dem si ami xolof english bi di fa wax english kese ba nit ñi bàyyi ma ba nit ñi fàttee mbiri baara baara yi may def nii hopefully nañ ko fàtte te duma defati vidéo baara sax léegi nit ñi suñ ma bàyyee ma xam jàmm ma soog a def beneen vidéo xolof beneen ami xolof account I don't know I'm thinking lu ngeen xalaat waaye nit ñi man ma nekk di ñaan ne bu ma ko tëj di bu ma waxee loolu si bëccëg ba tey bon bëgg naa ko tëj de ma sonn si mbiri baara yi nii te baara wax naa ko sax ne ko dama bàyyi defal vidéo léegi case close muy yéen nit ñi bugg a dugg nii yéen xam nga su ma leen jëlee lu ngeen di wax moo tax ñu ne ma leen a jël baara du suma xarit de génn góor gu ma sonn la si tiktok bi please don't close ma ko bëgg a close tey dem naa ba bëgg koo close record naa ko yëpp sax waaye dafa càng xam moom munuma koo na a close moo tax record baa ngi fa di ngeen ko gis because bu ma demee ba click rek delete account ma click yëpp ma ko pour wan leen ko ne close naa sama account bi because su ma ko record ngeen di foog ne TikTok ñoo ma close te fekk man maa ko bëgg a close léegi nag ma record ko yëpp screen record ko waaye bu ma xeggee ci TikTok ne mun naa leen ko mun naa post screen record bi sax ngeen gis ko bu ma xeggee si bi TikTok waxee ne Euh, seen nañ la message seen nañ la code ci sa téléphone bi pour nga def code bi fii nga mun a close account bi foofu mooy problème because TikTok xamuñ suma mobile number bu ma xamee nii léegi si laa xool number bi ma gis number bi ma ne wuy yaay suma number bu njëkk wala ñaame tey laay dee so looloo tax waaye ni ko noon account bi close na right now mm-hmm. ma ko bëgg a close dem si ami xolof english bi di fa wax english kese léegi ba pare ma develop international followers yoo xam ne dañ dégg english plus yéen ngeen fàtte suma mbir ak li ngeen may def nii yëpp mbiri baara baara yi ngeen may def yëpp ngeen mun koo fàtte ma commencé zéro su may defaat beneen ami xolof du xam mbiri baara oh ma xefi you understand so loolu la waaye nanguwutoon ma close ko mooy problème bi because um, phone number ku xam nu may def ba close ko dama waxal no it's not about it's just comedy you don't understand it's not just comedy baara fa nekk dima ñaawal ba pare nit ñi dima fitna <clears throat> ok guys maa ngi dem danaa ñëwaat ñu warga su ma jullee gaye ba pare mun naa xam mu ñëwaat ñu warga su ma jullee gaye ba pare ok guys cause tey dama nelaw nelaw yu doy ba xeewuma ba ay midi te liggéeyuma fii ba xalar ba laay war a demaat fële na le bu dee dinaa demaat so jarul may teel a tëdd. So mom. Hmm. déedéet ngay tëddi sa at least suba xamu leen school ba àllarba. ngaa toog ba ay one o'clock foog naa du ma teel a di toogoo suba ba bët set di play game de. la nga doylu hut play games ba tey doo ko toog suba ba bët set ngay fen booba tey ginnaaw la si sa computer bi ah yaa koy yëg toogoo ba bët set de it's <laughs> ma golo go lakk gi la naan ma baara baara xay yi may fitnaal yépp yal na ma yàlla àtteeg ñoom maa ngi ñëw dem gaay soof xoolal xaaral ma noppi sax bët yi ni yëmboo si bët ok guys borom weer yi ni yëmb ak ñi may fitnaal yépp <laughs> keep the account for us I know right ma ko bëgg a tëj sax ah account bi ma ko bëgg a tëj ndax mbiri baara yi ma nit ñi def ami do you love baara what the hell everyone knows you love <laughs> baara crazy love ma ko su ma amee jëkkër ngeen noppal ma danaa jël si nit ñi may topp kenn ndax yàlla ngeen may ma jàmm sorry bul dugg dama la yónnee request by mistake bul dugg love you thank you we enjoying you and Bara so interesting Amy why you are enjoying it I'm not I don't want Bara to do any more video for me I will never do video for him again so that's it case closed Ali is not good for your health loolu what what you mean Ali is not good for your health what type of English is this ami sa bi rafet na jërëjëf man maa koy jaay ku bugg rek ku bind ma maa regg ne ba ne yasa baara rek su ma jullee pare naa poose xaar suma xef yi la ba mu baax sumay warga singëb mhm. fa teggeeku ko ndox di laare mu teggeeku playing all the time ami séeri baara <laughs> billaay yéen a soxot ta gis ngeen su ma kenn ci nit ñi may topp nii ba am jëkkër da ngeen ma jéggal <laughs> amin na ngeen noppali taxaw leen ma dem jàpp ba ñëw xaw ma fu ma jullee a pare dikk su ma dikkee ku fi tudd turu baara danaa ko bloqué taxaw leen waxal leen su ma demee ba ñëw ku tudd tudd baara danaa ko bloqué wala ma miit ko bës ko mu muuma taxawal ma def suma doom ji sax su ma rakk ji sax ma def ko mu di reetu su ma foloo si taxaw leen ma waxal leen ku fi tuddati turu baara na ngeen ko bloqué wala ngeen miit ko def leen lu leen neex ak borom bilok wala xama bilok xaw ma <laughs> block wala mute block wala mute ok guys ku tuddati turu baara fi mhm. so ku bugg ñu block xaw ma block xaw ma oh lu tax may wax block ku bugg block la wala ñu mute la na nga ràng naan baara baara ni ko sibbutu taxawal ma miir kii anyway may dem taxawal ma ñëwaat ok kay maa ngi ñëwaat su ma ñëwaatee miir leen léegi is no point may weesu ma time di leen miir because may dem su ma ñëwaatee ok guys incha allah su ma ñëwaatee teg warga teg yëpp you know ñu warga ambiance ku ma fitnaal ma miir ko ku tudd turu baara ma miir ko bala ma block ko very serious ok guys so guys maa ngi dem ba si kanam bye guys waa taxawee bi moo ñëwaat rek xay yi may fitnaa nii yëpp su ma ñëwee block leen du ma leen miita ma leen di block dégg ngeen ko ten fi ku ko wax nag moo bëgg ku ko ku ko bës ñu jaale ko dégg ko du caaxaan ak comédie de barke salaatu faatiya su ma ñëwatee ku ko wax danaa ko bës ñu jaale ko dégg ko maa ngi ñëwaat salaam ba ci kanam incha allah